di fàttalante ci gan gu mag gi nga xam ne moo agsi te ñu doon ko séentu lu yàgg te jàmbaar yi nga xam ne dañoo man gan yàkkamti woon ko lool di ko waajal gan gi nag agsi na gan ñi nag wuute nañ aw dikkiin waaye wuute nañ it aw nekkiin am na gan ñooñ bu ñuy ñëw duñ indiwaale dara te bu tàggoo jotee danañ tàggoo lu ëpp fukki yoon léeg-léeg ñu ne kon maa ngi àgg kër ga léeg-léeg ñu ne maa ngi jekk ji léeg-léeg ñu ne kon de bi xanaa kon te fekk dañoo am lu ñu bëgg ku leen ko yeewee ñu yóbbaale ko waaye moom gan la goo xam ne safaan bala buy ñëw day ëndaale moom la sëriñ bi wax naan yow mi gën ci gan ñi yow mi nga xam ne booy ñëw da ngay ëndaale lu ne gàññ loo xam ne amu ca benn bu ñu mën a ñàkk waaye waaye dalal sa kër ngi nii sa ñoñ ngi nii sa waa kër ngi nii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 ndax ëndaale na ni bu xase ba agsi nga dalal ko na ko war a dalale dalal ko fa nga ko war a dalal ganalee ko na ko war a ganale yàlla def ciy jaare ubbi la bunti aljana yépp yàlla na ci yàlla boole te kuñ ubbil bunti aljanna na ko wóor ne tëjal nañ ko bunti sawara yàlla nu yàlla musal ca moom lu tax ñu ne day dañ koy ubbil bunti aljanna yépp euh, nit liy dox digganteem ak dem aljanna seytaane moo ci jiitu seytaane moom li muy xëy di ci gont mooy luy tee nit dem aljanna waaye li muy xëy di ci gont mooy luy tax nit wan gannaaw aljanna jëm ca safaan ba yàlla nu ci yàlla musal gannaaw tënkal nañ ko seytaane te seytaane li ëpp ci si muy jaar ci nit ki ba yàqal ko bànneexub bakkan ca la ak bànneexub yaram gannaaw nit ki xool na digganteem ak suñu boroom subhaanahu wa taala mu xañ boppam bànneexub bakkan ak bànneexub yaram seytaane de daal tële ci moom tàmbale tële yàlla na gën a jëm kanam benn ñaareel ba it lum ca def yàlla daf ko koy fulal kon bis ba nga xam ne bu agsee la fay yóbbu nit aljanna di ko amal njariñ mooy mu peese la muy peese dis gann yàlla na lu baax lu diisal suñuy poids yomb na lool ci biir weeru koor bi ndax benn bu waay def suñu boroom daf koy ful waaye jëng gi ñu koy jéngal seytaane it kuñ jëngal seytaane dox nañ digganteem ak jëm sawara ndax seytaane ab nosam lay yor kum ko lonk ci bakkanam la koy dugal nosub gëléem ci bakkan lañ koy def waaye nosub seytaane ci bakkanu nit la koy def wom mat ko jëm ak moom ca safaan ba yàlla na ci yàlla musal kon diggante la bopp daara la ci ab jullit bu xolam di dund daara la ngir mu jàng ci tabe ndax tabe euh, ci alal lañ ko gën a miine waaye tabe nag ci loo xam ne yaa ko moomoon sañ caa jëfandiku nu mu la soobe nga ne ko fu ñukk jox ko suñu borom bu koor gi wee it yàlla nañu yàlla dimbale bañu ñu tàmm ko waaye koor ca dëgg-dëgg bu fekkee jikko soxla na ndox mu koy suuxat mënees na ko roote ci koor ndax bañ a lekk bañ a naan bañ a fóon lenn luy xeeñ xet gu neex bañ koo laal ci sa loxo bañ a dox jëm ca loolu ak yamuy àndal ci yu ñu war moytu ci déglu ko ak ci xool ko dëgg-dëgg bu koor gi jàllee it ku ko ci jàng ba miin ko ba mokkal ko euh, téye leen kee mën naa yeex lool mën naa sore mën naa sore lool ndax ku mën a sàmm boppam ba wéet fi barab mën a def mën a bàyyi mu bàyyi ngir yàlla xana bu gene ci mbedd mi lolou warna fañ feeñ ci digganteem ak moroomi jaamam yalla ñu ko yàlla jàpp jàppandalal waaye ku wor deug deug li dundal aw yaram muy ñam lek ak naan ak noppalu ku wor deug deug ruham day dund bu wër ndax ruh li koy dundal moy tewlu suñu borom sa su sasunek nga diko yek sa su nek loo war a def sa bët na jàkk ne ah xoolal ba xam lu ci yàlla digle nga gaaw def su dee lu ci yàlla tere nga gaaw bàyyi loolu mooy dundal ruux waaye ku woor dëgg-dëgg it xool bu set ci lay yor waaye bokk na ci li di jàngale it mooy farlu ndax ku ne xam na ne benn ci yi am solo lool te yonent bi doon ko jàngale daa ko def muy xadd waxtu wi muy nekk faw nit dog ay nelawam jóg euh, waajal ko su bëggee jot ci mbooleem yi nga xam ne mooy teggini koor ak bu yoolam waaye bokk na ci farlu it ci yi koor di jàngale fu ñuy séddalee dara am na ñu koy wax ci ngénte yi yàlla leen yàlla fay kuñ jox dara loo xam ne di ko da koo baaxoo yóbbaale ci ngénte am na suñu farlu ñoo xam dañ naan la nag dangaa woor bu ñu la ko ne jàpp ba ne coppet seex ñu ne la dangaa woor de nga ne ah kon de ku woor du coppati di seex bëccëg moom te amu ci ngànt waaye koor yi des na ci tàggatu téye saw bu fekkee nar ngaa woor dëgg-dëgg waaye des na ci tàggatu téye saw nag mooy wax ju amul njariñ waxuñu wax ju am njariñ waaye des na ci tàggatu it cër yépp déglu loo war a déglu ak wan gannaaw loo wërta déglu ba cër yi li ñuy def lépp jeex waaye weer la woow di jar na sonn ndax benn yoon lay am ci at mi bu xasee ba agsi nañ góorgóorlu gaaw ndax kat xamuñu boo xam danañ ko fekkee waatam déet waaye yàlla nañu ko yàlla defal ndax ñi nga xam ne fekke woon nañ ko daaw ni ñun te fekkee wuñ ko ren dem ba dara desut lu may waajal ko yàlla jël leen wala ñu dugg ci ba noppi ca saasa yàlla jël leen kon ñun fan yiñ ci amagul ñu ngi ciy sant yàlla di ñaan yàlla it mu may ñu àggale ko lépp ci tal teñ fas yi ne dundal bëccëgam yi ak guddeem yépp ci def lu baax bu ci nekk buy dem yóbbaaleel ñu ba mu fees dell ñu yeesalaat ci suñu tuub ndax yeesal tuub ci weeru koor weeru koor daa am yi ñu cay joxe am yu ci nit di wuti te ku ne xam na ne nit ki bu ñu ko taajalee ndab tam bëgg ta jëfandiku faw dana raxasu ba si wécc raxasu nag bu dee jaamu yàlla gu nit jub na koor mooy tuub ay bakkaar raxasu ba set wicc dugg ci jaamu yàlla gi te loolu daf caa am solo lool ndax aw ñam luñ ko waajal waajal ay loxo yi tilim di ko jëfandikoo la ñam ma doon jariñ dëgg-dëgg mën naa wëlbati ko sopp ku wat leneen yàlla nu ñu yàlla musal ci gàkk-gàkk yi man noonu moo tax euh, ñi nga xam ne daf leen a ñu am xolob mën a dimbale seen moroomi jullit ak seen moroomi jaam nañu xam ne weer a ngi nii wow mat naa roye yonent bi sallallahu alayhi wa ndax yonent bi moo gënoon a tabe ci ñi yàlla bind ñi koy way di ko tagg danañ koy misaal ci tabuk géej géej bare na ñu koy jariñoo te mësuñu ko tëg bët boo demee ci réew yi nga xam ne amuñu géej téewu leen di lekk jën ak yee jóge ci géej gi te tabu géej moo ko lawal ba mu àgg foofu waaye am nañu ko tagg it ci ab taw ndax géej yi muy génn nit mën na saa mën a bañ a jot ndax dañ koy tegal ak njët ca pegg ba waaye am nañu ñu koy tagg ci ab waa aw waame ñoom it kenn gën leen a xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax waame muy taw bu bari day taw ci ndox bi day taw ci suuf si di taw ci xur yi di taw ci doj yi ba ci géej gi sax far doonte géej gi miinuñ fa mbay waaye ndekete yoo taw li muy def du ñiy bay dong lay tawal waaye ndekete yoo taw bi day tawal géej gi ngir géej gi xaw a tàng tuuti ba jën yi mën a jaboot loolu mu ngi bokk ci xekk may suñu borom yi muy jëfandikoo dañu ko woon saa su nekk tab googu nag waame am wala géej am ko tañ ci daan tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp yonent bi leen gën a tabe waaye bu weeru ko mësaan ñëw ca lay raw lu ko way wax rek baat ak tontu lay doon moo ne loola day siñ bu mag bi daane ko ca roy bu baax a baax a baax a baax daana jële ay xewal ca biir këram ga di fekk nit ñi ci pénc mi ñuy dogg mu da leen ko joxal boppam loolu it lu jege la li su war a mën a roy muy ku ñëw ne dama bëgg nangam tam ne ci wooru koor nga gaaw bokk na ci sax li koor di jàngale bari na ñoo xam ne buñ ne nit dana toog ba jant bi so du am lekk dana leen jaaxal dana leen jaaxal lool waaye su wooree dana xam ne ndekete loolu mën naa am xëy ba jant bi sa nit du lekk mën naa am ñaareel bi it bu ko nit ne dama xiif am na ci ñooñ bu ñuy tukki sax dañuy yóbbaale lu ñuy lekk teg ko ci seen pegg waaye bu nit ne dama xiif it fekk mu wooroon dana xam ne koor moom ndekete ku ne dama xiif mën naa wax dëgg kon weeru jëkkante la ci tabe ci saraxe ci jàng alquran ci def salawaatu ala nabi te mooy yu bari ci xaside serigne Tuubaa yi làmboo ak toggo toggu ci sa bopp ay jaamu yàlla yoo xam ne sax mën naa am yàlla tegu la ko bokk na ci li yenn ci ay gone def yàlla yàlla def ay mag muy xiyaamu layl néeg ba mbëstan ba noppi ba nga xam ne tëdd rekk a des wala génne lido yi fas yéene lido wala génne carte yi fas yéenee mariage gono yooyu ne fojjat ñoom waaj ba jekk dem ca jàkka ya bu jullee fa fajar door a yewi ku tasaaroo yàlla na yàlla def aw mag bu am njariñ loolu la ñuy wax tahajjud yàlla nga ko doon wax yonent ci wa min alleyli fa tahajjad bihi naafilatan laka asa an yabathaka rabbuka maqaman mahmuda ñi nga xam ne nag dañoo jàpp ne koor moom mooy bañ a lekk bañ a naan képp njuumte mën na leen a dal teewul nag ay jàmbaar lañ ndax ki nangoo def loolu ci bëccëgu weeru koor ngir yàlla soo ko ne yàlla lii la digle mën na laa diglu ndax waaj na ngir teewlu waaye koor du bàyyi lekk ak naan kese am na ñooñ teewu leen a wax lu ñu bëgg a wax teewu leen di jëw teewu leen di fen na ma yàlla baal ci baat bi teewu leen sax di def li nga xam ne moo raw fen muy duural nit ki sosal ko ay wax waaye seeni gëtit lu leen lu leen ca neex xool seeni noppi lu leen ca neex déglu loolu nag bokkut ak dëgg-dëggi koor moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon ku woor ba noppi teewu koy wax lu mu bëgg a wax ci làmmiñam teewu koy def lu ko neex ci ay cëram ci déglu ak ci wax ak ci dox jëm ca na ko wóor ne yàlla amut ci sox soxla ci bàyyam gam bàyyi lekk ak bàyyi naan yàlla nu yàlla musal ca lool nen di naan loola mooy nen di naan nen di naan ay nen dana bari put put ki dana bari waaye ay cuuj moom du bari moo tax suñ bu mag bi tënk ko ci ay bayit yu gàtt boo demee ci masalikul jinaan da nga ca fekk luy tegtale ne sëriñ bi lu na dëgg-dëgg woor xadisu yonentu boobu sallallahu alayhi wa sallam la way mi ngi tàmbale ci summa siyaamu fantabih lam yanxasir fi adam al akli faqat la tagtarir fa ruba saa'imin maa jamaa laysa lahu fihi siwa almajaa فالصوم أن يصوم كل عضو عن كل ما يفضي فتى لسهوي أمسك عن النظر للحرام والمشي والسمع مع الكلام وكل فكرة ردية كما أمسكت عن أكل وشرب علما نانا كور بولاتي كنخ du lekk ak naan kase waaye la cay tegtal mooy bare na ku woor ba wori ñépp xam ne ku woroon la te ndekkitu yoo buñ koy fay duñ ko fay lu dul xiif kase te xiif kenn du ca fay kenn fi xiifu kese yàlla du ci fay kon xiif dong la ca am di woor ngir xiif nag moom amul njariñ yàlla nuñ ci yàlla musal nee na koor dëgg-dëgg mooy cër yépp woor cër yépp woor ni biir bi woore ak gémmiñ gi koy jox mooy nga téye sa bopp jàpp da ngay dégg ñiy wax ci faj gi naan jàpp jot na te fekk jàpp ak jàpp jàpp lañuy wax al imsak téye sa bopp ci xool lu xaraam ak dox jëm ci lu xaraam ak déglu lu xaraam ak wax lu xaraam sëriñ bi nee na loolu mooy koor waxuntuma nag xalaat ko xalaat moom nga xam ne mooy jur déglu mooy mooy jur wax mooy jur xool it moom ni nga bàyyee lekk ak naan saaboo boo dem ba nar a xalaat yu mel noonu rek jëlal ab téere wala nga tàmbalee tudd yàlla léegi tey iblis seytaan daw nga fàtte ko euh, waaye sëriñ bi jàngale na ni bu waa ji yan tënkoo ci loolu ci bëccëg bi lépp ba dog jotit wax naag kuy ndogu nu muy def am na ñooñ seen ta seen fa ñuy lal di ndogu dangay defe ne mbooloo mu baree baree bare ñooy dikk te moo ne moom dong la ñuy lalal ko foo xam ne fii bañ du fa jege lal bu yaatu nga xam ne bu tàmbalee woon lenn lu ci nekk mu mos ca képp guddi gi dana sori waaye mu jal ko ñu wër ko ana nangam ca ma nga ne ana nangam ca ma nga ne ana nangam ca ma nga ne buñ ne nodd nañ de te timis daa gàtt mu ne ah diine de maye na nga dog ba noppi te bañ ko yàkkamti bu noppee ba këpp këppal timis ba noppi tàmbalewaat jëmale waxtu mbëstal bu mbëstal jotee nag la ñuy togg indi la ñuy ndogoo dëgg-dëgg lee ay caaxaan la woon bu ca noppee ne xadd bi nag ma ko tegal foofu ndax dafa am fu may xëy buy xëdd itam day mel nit tey jii lay mujj a lekk yooyu nag ku ko boole bu bëccëgee du am njariñ day nelaw te bu nelawee yi ñuy wut ci koor da koy raw maanaam doonte nelaw yàllaa ko booleeg nit kii nelaw moom desu ko bindal bàkkaar waaye desu ko bindal lu baax itam nag desu ko bindal bàkkaar ndax defu dara waaye mënu su ko bindal lu baax moo tax sëriñ bi ne wala tukathir suxuura wal futuur mumtali al batni fa tuxrama al ujur wa kullu man amlaa batnahu taam wa akthara alshurba alayhi walmanaam

ndax nag day toog ba mu yàgg mu du muy duñ ñëwaat maanaam lam lekkoon te mokkutoo da koy génnewaat di ko di ko mokkalaat fekk goja gajaf na mel ni gone gu ñu saxal piire rek euh, kon bu ko niroole ak nag xas wu rëy ngi noonu ci doomu aadama doomu aadama su wàññi ko bañ di ko niroole ak bàyyi moom ci aw lekkee na ma ko naan yenam war naa xoolaat boppam nee na da nga ci gis ñoo xam ne bu ñuy lekk ci koor gi dañuy mel ne moo xam muy xadd wala dog wala mbëstan day mel ne nag wuy lekk nis tuuti bu koor gi tàmbalee ami fan rek nga gis biir bi wër ko muy ray koll bi ñaan ah barki bay ñëw léegi nee na ku ab kollam wër dana soxla ludul, dul tudd yàlla ju dul jeex ak toog di jàng alquran ju dul jeex ak toog di def salawaatu ala nabi yu jeex ndax toogin wi gën ci ku jàng alxuraan boroomu koll mënu ko boroomu koll mënut a toog woowu te kat amna suñu sax dañ ci bolé tok fu sedd ba nopi sol turki ndiarem bo xam dañ koy wok bolé sa ngalé lu sedd li jaar fu nek te bo waxé mu ne tangay tangor ko gi daa metti sëriñ bi ne lolu wor sa bop la te yàlla ñu yàlla musul ci nax sa bop wa ba'dhuhum yakulu akla al-baqari وقت فطوره ووقت السحر حتى يكون بطنه ثقيلا جد جدا فصار قلبه مشغولا عن ذكر ربه ويدعي الصيام وهو لا يحوي فتيلا في القيام أعاذنا الله من الغرور وكل ما يضر في الظهور آمين كن كورا noonu لو يمبلا لو جفلا لو يمبلا موي ku teg sa tànk ci lu ci nekk ni lañ ko santaane doo ci juum te doo ci sonn ndax yàlla laa yukallifu laahu nafsan illa wasaaha lu yàlla xool ba di ko teg nit ñi lu nit man lay doon ñaareel bi it la cay sonal gën a nit mooy lu mu ca teg boppam loo xam ne yàlla tegu ko ko lu yàlla tegul nit ki nag bis bu fay jotee yàlla di fay ñam santoon bu yaakaar ne moom daa war a fayu ni ñëpp te kenn wóorul kenn كان جلوز كان كان أجلس مكة كان كان كوش إنك تكون تملاي دف ني فتل لك فتل لك مولا نوار فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبوا الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم قلنا هنا كوش إنك بس بفاتو مم دونغ لني كسل بمخور نسولكم dem bala ñu koo suul yi muy dégg na santaane suñu borom la waru caa déglu ma sàmba waru caa déglu ma sàmb ma dem ba na gaaw te xam ne buñ ci jëlee misaal mu gàtt foofu laa jeexale saa bu nit ñi raxasoo ba ndaw ku ndaa ñëw ku mel ni moom dikk ñu ubbi waaw kutibu ba mu jekk nu mu koy def da koy sànni wala daf koy jox keneen mu sax ko moo koy saxal boppam nit mën naa tële tibb mën naa tëlee sax ndax yurut ay loxo manisé na ko koo defal manisé ko sax xamee sax su fekkee amu ci bañ wala amatu ci bañ waaye wanaasu nag mag nee na woon wanaasu boroom waay wanaasu nag boroom fàttalente yi ku defe ni bokku ci cala ku defee ni yaa ko moom it gàtt xel mënta weesu la da nga ciy jël bàyyi keneen mu jël leneen waaye fàttali gi mooy loolu rek mënees naa toggal nit yàkkal ko tibb teg ci loxoom bu dee ko ay loxo la wala sax xamal ko su amut ay gëñ waaye wanaa nag boroom te ëllëg lu jege la xalaat ëllëg moo taxoon sëñ bu mag bi bi ko tubaab bi jàppee saa su ne ma wax ko ci jotewut ak moom dara yóbbu ko bitim réew fu sori foo xam ne tey boo fa doon dem lu mu néew néew danga dox ci avion juróomi waxtu yu teg door a àgg dëgg-dëgg ci diine koo xam ne génn na këram diggante bu toll noonu te xamut kañ lay wàññiku amoon na ngàntu lu woor waaye xelam xalaatu ko ñaareel ba it ndogu yi nga xam ne moo am léegi kenn ku ci nekk buy dog lépp wër ko amu ko woon amutoon ku ko toggal ndogu amutoon ku ko toggal xadd amutoon sax ku muy yónni ci bëccëg bu naaj wi tàngee walla ku ko defaral mbaar yam daan seelo buy taw waaye téewutoon weeru koor bu ñëwee su amee lum doge ak lum xadde ak su ko amuta ci yam am na ay nett luy wér yoo xam ne ci moom la koo mu wax ne am na ci bis bopp toog na ba dog jot te amul lum doge waaye foofee mu nekkoon daa bari garab yoo xam ne dañ leen di jëfandikoo te doom ya ñoraguñ woon waaye xob ya la jël rek sax ko tucc tuccal ko muuc ko yàbbi koor dog kooku nag ku koy tuddoo war ngaa góorgóorlu boo waxee ñu kenn mënut mel ni moom lu wér la kenn mënut mel ni kenn waaye ni ko Sëriñ Saalihu waxee woon nee na ku roy kam war a roy dana raw ñu bari sëriñ bi musta caaxaane ak jaamu yàlla musta fekke fu ñu koy defe bokk na ci lim gënoon bañ looy def mu ne dara ci loo nekk nekkuma ci dara foo jëm jëmuma fenn yett yooyu ku ko masaan laaj nga wax ko faw mu la foo jëm wala mu looy def wala mu la ci loo nekk musta ne na jamono rawatina nag weeru koor ku toll ni moom su mënee jóge jële ci këram ay yëf di ko andil ci pénc ma nit ñi di ko doge waxaale wuñ ko moom dajay roy yenente bi kon ñi topp si ginnaawam war nañ ko mën a roy te lépp gën yomb léegi lépp gën yomb moo tax ëllëg aw lay dana jafe lool suñu digganteeg suñu borom ci jamono ji ñu taseel ñun xawma ko woon kenn du ko wax mënuma ko woon it deesu ko wax waaye gisuma woon ñu koy def it ko wax ña suñu borom di wax ne alam takun ardullahi wasiatan fatuhajiru fiha ñun ñu ñoo tax ñuy wax dem fu nekk yomb na làq fa sa pas-pas am lu nekk jaamoo ko yàlla yomb na soo ko mënut amit bari na soo demee ci ñoom ci yëg-yëg bi africain yi yëg seen diggante dimbalante moom miin nañ ko moom bari na ñuy añakara rek ndekk te amuñu joxewuñ dara ma fàttaliwaat ko sëñ Fallu bi mu nekkee Touba di sëñ Touba liggéeyu sëñ Touba ñor ko lool daana fàttali saa bu fukki fani mate fukki fan yu bu ñuy um fukki fan yu jëkk yi yi ci topp ak yu mujj yi day jëlal boppam rajo bi doon nañ ko junj karoog suñu Abdou Lahad Mbacké moo waxoon ne maane fu mu ne fu mu teewee moo ne duutu doon tus mu jël rajo bi rajo bi ci bopp lalam la ko doon teg su déggee lu mu wër sa dégg wala mu war caa wax mu yónnee ñu taal rajo bi jumaa ji boo moo war wax ak dëkk bi ñuy déglu leen mu ne weeru koor bi day agsi na santaanef suñu boroom subhanahu wa taala yéen ci liggéeyu sëriñ bi waaye koor ndigalul suñu boroom ku mën a boole ndigalul suñu boroom ak liggéey bi na ko boole ku ko munta boole na bàyyi liggéey bi te woor te koo xam ne amoo loo woore sa kër ba bëgg ko defu lay naan su ngoonee it du ma am lu ma doge ñëwal ma jox la loo woore ba woore jeex loolu daana ko fàttali yett yoon ci weeru koor kon euh, ña jaar yoonam ma seen jaan wàcc na ëllëg gi si birit lu ma leen waxoon lu ñu leen waxoon ñu ne waxoon nañu ko de foofu amut tappale amut triche moom la suñu borom di wax ne fala nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin fala naqussanna alayhim bi ilmin wa ma kunna gaibin والوزن يومئذ الحق faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun yàlla na ci yàlla boole te bokk yi yowmal xiyaama amul kii moo jur kii kii moo jur kaa fa ida nufixa fi suuri fala ansaaba baynahum yowma idin wala yatasaaluun kenn ku nekk lu mu defoon la ñuy laaj rek des na fay nag ña jiite woon te daan jiitee ay ca leen ñu dem ñëw leen topp leen ma waaye ña daan wax dem leen ma fekk leen fa it des na laayoo ak ñoom ndax xamoo fu ñu jaar xamoo bi ñu génnee dañoo jàdd xamoo bi ñu génnee dañoo ruur waaye sëñ bu mag bi ak ñi nga xam ne ñoo koy roy ñëpp moom dañ naan ay ci leen kaay leen ñu dem yàlla na nu yàlla may ji fekke ko fekke nañ ko yàlla nu yàlla may àggale ko ci ak tal ak man te daje ci ak mboole ngim ci dige ñi nga xam ne it wéradi daf leen cee dal bañ am ngàntu lu war yàlla na yàlla tàggalee wéradi googee ñi nga xam ne it dégguñ ko niñ ko war a déggee yàlla na leen ko yàlla déggloo bañ wàññiku ndax koorug daaw dootu dellu koorug déwén la ñuy waxtaane te ka koy fekk yàllaa ko xam yàlla nañu ci yàlla boole kon su ni ko wolof di léebe su asamaan wàccee gaawal laal ko ndax xamoo bu yéegee dana wàccaatam déet yaxfirullah